ni ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal. maaleykum cher internaute allo Dakar TV jëfal nañ leen bu baax a baax tey dañu ñëw fi nga xamante ne mooy euh, euh, ci investiture monsieur euh, le président Macky Sall dañuy wàcc laaj population bi ñi nga xamante ne ñëw nañu. xamante ne mooy ci investiture bi laajte leen seen yëg-yëg ak lan lañuy ñuy soññu président Macky Sall bi nga xamante ni ñoom ñoo ko fal bu ngeen ci bëggee xam dara topp leen ba. waa di di di di wax ne rek di rax wax ne rek Parcelles Assainies gi ñu nekk. ñoo ngi ci ginnaaw Amadou Ba ñoo ngi ci ginnaaw Mbaye Ndiaye comme ni ma ko waxee léegi rek maa ngi ñaan nag président mu gestu parcelle jeunes yaa ngi fi femme yaa ngi fi takku nekk femme brave mais nag ba léegi nag première mandat bi moom des na mais deuxième bi nag moom mooy loolu. salaamaaleykum waaw maaleykum salaam. yaa nañ la tur bi naka la. Kumba Sidibé la. monsieur Dibe tey dañ la fekk si fi nga xamante ne mooy investiture président Macky Sall bi ana lan ngay xaar ci moom ndax gis nañu mbooloo bi gars yi fal nañ ko ci premier tour lan ngay xaar ci li may xaar si Macky mooy comme ne mu daan def rek buum ca boy boy ba rek liggéey rek liggéey rek ndax Macky moom boolewul daraa ki wax jëfam moo ëpp ay waxam waaw loolu rek la ñuy xaar si moom xam naa ni fa mu daan jaar rek lay jaar waaw. yow daal sa xel dal na fi sama xel dal na si Macky Sall ndax. Marème Faye Sall mi nekk si wetam moo tax sama xel gën a dal damay wax Marème Faye Sall nag waa Yëmbal Noor waa Yëmbal Noor soxla nañ ko na wàcc si le terrain ñëw wax ak jigéen ñi jigéen ñi dañ koo bëgg te Macky xam ne nag jigéen ñee ko fal na jàppale jigéen ñi ci financement bi na jàppale jigéen ñi ginnaaw yàlla jigéen ñee ko fal. madame Sarr Ramatoulaye Diamé tey dañ la fekk li si fii ana lan moo la yëkkati tey. maa ngi jógee Fatick Fatick laa dëkk. Fatick nga jógee. Fatick pour ñëw fekkee ci prestation de serment suñu président Macky Sall. waa di ci bég torop ndax xamoon nañ métti woon nañ torop vu ces yi mu def fii ñun waa Fatick xamoon nañ ni président dina jàllaat. waaw loolu bettuñu waa fu mu nekk nii daal ñëpp ñëw nañu. ñu ngi ne président kontaan nañ di ko ñaanal nag yàlla euh, yéen bi ko euh, yàlla yéen li yàlla na ko oyofal ci moom waaw Fatick ñu ngi derrière le président Macky Sall ñëpp ànd nañ ak moom euh, di ñaanal euh, la première dame ndax tey teel naa dem euh, Makka Mekka fu mu nekk nii quatre tey ren jii première dame moo ma yóbbu di ko sant nag di ko gërëm ndax fi mu nekk nii exemple bu baax la exemple bu mag a mag ci biir Sénégal. remercier aleykum salaam wa rahmatullah maa ngi leen di ñaanal gudd fan wér gu yaram ndax yéen tamit ci ngeen du dëgg. sama ñëw fii nag pale nag bég rek kontaan sama président rek ndax président def mat président boolewul dara ki wax moom jëf moo ko gën a yomb wax mi koy ñaanal xam nga lan naa koy ñaanal sixième mandat te maa ko ñaan nag. ña waaw. <laughs> Macky si deuxième bi da laa la wax xam nga lu tax ma bëgg sixième. <laughs> Ah, ah. ndax Macky dafa maye bourse muy suñu doom yi bourse. dañoo bëgg mu nekk fi nag ba suñu doom yi fekkanteeg moom si gouvernement bi ndax dafa mën a diriger. te xoolal Marème nag xoolal nekk première dame boo xam ne moo ñu changé ñun daami Sénégal yëpp nag mooy suñu idole moo ñu si mooy suñu idole bëggul dara caaxaan Marème ku mu dajal ne la góorgóorlul jàppal si lii nga liggéey Sénégal jëm kanam.